Bon, gisee Bassirou Diomaye Faye sakou, pour les pouvoirs du premier ministre c'est-à-dire en quelque sorte pour le sécuriser pour sécuriser ce poste de premier ministre parce que depuis 1960 depuis tant Senghor c'est pour mais c'est pour le sécuriser au Canada des États qui fonctionnent avec des premiers ministres le Canada Justin Trudeau boo demee boo demee Italie. Hmm c'est la même chose. Bon mes Royaume-Uni, l'Angleterre, c'est la même chose. Tu as l'impression que c'est le Premier ministre qui est même le président de la République. Même tout contexte bobu, là tu sais pour moi, le mota, son excellence Basil Diomaye donne sa compagnie à les pouvoirs du Premier ministre. Mais déjà pour moi, que Basil Diomaye en tant que président de la République, chef suprême de la nation et des institutions, dina yokk les pouvoirs du du premier ministre ba nous opposer ses pouvoirs <laughs> mais c'est Fallou loolu le lu mënul nekk la pourquoi donc ça fait du bruit pourquoi ça fait du bruit à maman lay la xaar. toujours toujours non non non non non non non non sëñ bi <laughs> sëñ bi bul yàq sëñ Fallou bul yak débat bi toi aussi bul yak débat bi. bul yak débat bi donc man pour man. pour man non non non bul yàq débat bi ngir yàlla ne serait-ce que respecter le sénégalais yi ñuy seetaan yenn tur yi waroo ko si te fii yow yaa ngi ni ma di wax ma may wax ci Basir Fofana Basir Fofana te bëgguma ko woon wax la may indiwaat encore beneen tour Adama Fall mooy lan ñooñu ñooñu amuñu xam-xam bul yàq débat bi donc bàyyi ma fi ma nekk donc euh, dama doon ne sëñ Fallou gis nga pouvoir premier ministre dañ ko wara yok tu sais pourquoi hmm. pour le sécuriser on a eu des premiers ministres qui ne dirent même pas un deux trois rek nga wàccee ko dina commencer ben politique de gouvernement rek nga wàccee ko dina commencer wala jël ben décision bo xamante ça amana amaana yow li nga bëggé mu démé nonu en tant que président de la république pour des questions politiques mo mu ne la non non du mën nek parce que dañuy jiital intérêt réew mi ma jël décision nga wacc nga daal di ko. Mm. andi keneen moo il est temps ñu dollar les pouvoirs du premier ministre man fofu lay xaré Bassirou Diomaye fa xam lan man fa lay fa lay fa lay fa lay joxe sama sama sama impression sama analyse damay xaar ba ñu wax ñu dem assemblée nationale ñu augmentation des pouvoirs du premier ministre lan ak lan ak ma foofu laa leen di xaaree. il faut que leeral askan mais loolu laa bëgg justement loolu laa bëgg justement ñu leeral ak ci yan anam la ñuy dooleel les pouvoirs du premier ministre la ñuy doolelee les pour les pouvoirs du premier ministre man foofu laa leen di xaaree mais concernant dooleel les pouvoirs du premier ministre allez prip nous commencé coow man man coow bi nekkul fofu. ñu euh, ñu li euh, nekkul bicéphalisme. mënul am bicéphalisme dans dans ce dans un pays qui s'appelle le Sénégal mënul am palais présidentiel ben fauteuil mon fa pour le président de la République qu'est ce un pays ne peut pas gouverner être gouverné par deux présidents de la République mënul nek il faut que les gens arrêtent de jouer avec les mots bicéphalisme moi les Sénégalais, est-ce que les Sénégalais ont élu deux présidents de la République pour parler de bicéphalisme Parfois, les gens utilisent des mots dont ils ne savent pas le sens. Un président a été élu au suffrage universel direct par les Sénégalais. Il s'appelle Bassir Diomaye Donc, comment on peut avoir un, pouvoir à bicéphalisme hmm. alors qu'il y a un président qui a été élu, un seul et unique et ce président-là qui a nommé ce premier ministre-là, et vous parlez de bicéphalisme. Ça ne peut pas être comme ça. Je suis désolé. Donc, il faut chercher d'autres mots. C'est une fallo. Moi, j'invite les Sénégalais, j'invite tous les Sénégalais à attendre que Dolel le annonce ni que moom le bëgg du premier ministre Je invite les sénégalais ci ay ban ban coppite ban lan ak lan ak ban point ak ban point la ñuy le premier euh, ministre. donc da nga japp ni bala coow liy commencé. da nga japp ni les chroniqueurs dañoo précipiter mais dañoo yakamti basir Diomaye Faye dafa santaane pour ñu dooleel le pouvoir du premier ministre allez prip ñu commencé coow te xamuñu sa lan mo nek au fond. ñu ne euh, ñu ne la forme rek ñu commencé coow. le fond on sait pas euh, cherche à être redevable envers justement Ousmane Sonko. non c'est pas redevable c'est pas redevable. Son face de roi. C'est pas redevable. Ousmane Sonko, il a été honoré par Diomaye. Le fait de l'avoir nommé Premier ministre. Déjà, déjà, déjà. Ça veut tout dire. Alors, où est le problème Est-ce qu'aujourd'hui, on a besoin de dire que oui, tel et tel a besoin d'être redevable envers qui que ce soit Non. Diomaye s'il doit être redevable c'est envers le peuple sénégalais une Fallou si le président de la République veut être redevable comme ils utilisent le mot mm. c'est envers le peuple sénégalais c'est pas envers son premier ministre mm, mm. alors c'est clair ce premier ministre il a été il il été il a déjà comment adresse sargal déjà le fait de l'avoir nommé premier ministre maintenant c'est à Ousmane Sonko de définir sa bonne politique de la nation. Politique gouvernement, Ousmane Sonko, bon, quoi définir. il faut que le président de la République, Maïko Afia Bobo, faut que Bassir s'il parle d'augmentation l'augmentation des pouvoirs du premier pour moi, il faut que la koy djemale. Moi, manam, joko ben autonomie, joko ben autonomie, boumonata, c'est une fallou, moumonata,

bi itam par rapport ak suppression euh, li nga xam ne que moo di euh, bu conseil euh, wala kon suppression bu conseil économique social et environnemental bokk na itam su lu daal di ñeel si li nga xam que moo aussi suppression bu li nga xam ne que moo di HCCT di nga xam que moo au conseil des collectivités territoriales alors on poursuit toujours la matinale d'information c'est une mission le truc de matinale pour daal di ñëw si Arfam mm, si fa nga xam ne itam moo di France gis Emmanuel Macron invité ki n'a jamais que Modi Bassirou Diomaye Diakhar Faye euh, son excellence monsieur le président ak ki nga que Ousmane Sonko alors euh, fu mu toll ni nak invitation rek Modari daal a amaguñu li nga que une réponse euh, venant de la part d'Ousmane Sonko ak ki nga xam que modi Bassirou Diomaye Faye mais enfin est-ce que concrètement euh, dafa war a wuy ji modi bobu da woté euh l'ina boobu de woote euh, le coup présidentiel wala kon euh, dana dañ fa wala a daal meuna a demani nit daal waxtane wat renégocier l'ina nga xam nekk les contrats parce que Ousmane Sonko l'a toujours précisé que ni waxul ni fay écarter la France mais quand même marché yi Sénégal d'abord bala keneen d'abord exactement en quoi Ousmane Sonko ak Diomaye wala Macron. oui euh, Macron euh, Macron et la France il reste des partenaires du Sénégal ça a toujours été comme ça même dans la rupture. Hmm. bu Ousmane ils n'ont pas dit que la France ne sera plus euh, comme adresse partenaire du Sénégal mais ils sont obligés de négocier avec la France il y a beaucoup d'entreprises françaises au Sénégal mën naa la ne sax entreprise yooyu ñoo suñu économie di tibb di yóbbu di tibb di il se doit de faire face à Macron alors man je suis d'accord man dama jàpp Macron moo war a Macron moo war a ñëw ñoo war a dem ci moom mm. ñoom ñoo war a Macron mu ñëw parce que deux dëkk bi fay changer Macron mo wara ñew man man dama invitation bi Macron ci mo wara déplacer ñew fi Sénégal nakul dem hmm. sama le ah. dama ne Macron ci boppam mo wara ñew bu dafa am limuy nouveau gouvernement wala ce nouveau président na déplacer bu que na parce qu'on est obligé, on est obligé de renégocier les contrats. Même le Sénégalais lambda sait que anam yu ñuy signé contrat yi baaxul baaxul santul yàlla parce que on peut nous, sommes suñu ressource am suñu énergie ba l'énergie ñu am benn ay société étrangère wala ay ay ay entreprise française ñëw signé ay contrat avec Macky Sall signé ay contrat yoo xamante ne ñun parfois on nous dit que ñun 10 lañu am 5 10 ñun dal musuñu romb loolu. mais en ce qui concerne l'exploitation du. ñun Sénégal musuñu romb loolu. kii laa expliqué ma ki nee na fii mënuguñu koo def. dama né waxuma la waxuma la ni ñu ngi exploité déglu bu baax li ma wax. il y a des contrats qui ont été signés. exemple là exemple bobu noonu. voilà dama né il y a des euh, contrats Sénégal ay capacité pour def ko donc il faut ñu am ci ben dama ne pourcentage bu ndaw. dama né ñun ñu am pourcentage bu ndaw. déedéet man je suis

ils ont fait di fa voyager di def seen vacances mais ils ont pris de bonnes décisions Ils hmm. am ay contrats yu baax la Libye si l'époque l'ère de Kadhafi le Nigeria hmm. tu crois que le Nigeria ils ont ñëw signé ay contrats yaa hmm. parce que c'est des états respectés et respectables. Mais, mais, mais, mais, mais, c'est une fallo. Le cacao, le cacao de, de, de, la Côte d'Ivoire, le cacao, mm. le cacao de la Côte d'Ivoire, tu crois que les Ivoiriens là, ils laissent les gens viennent signer un ay contrat voilà, imposer un prix ils ont ils ñoom ils duñ ci gis seen bopp. def pourquoi Sénégal nous ñu accepter ay non mais man c'est ce qui me fait mal dans tout ça au Sénégal on ne peut pas être souverain. Le Sénégal, nous, on ne peut pas être souverain, même dans nos propres ressources. Nous, nous avons souveraineté, avons autonomie sur nos propres, sur nos propres ressources. Nous avons ces ressources, nous avons wanter ko lolu moy wanter c'est comme si yow ya dem tay marché koloban jënd sa bal di jaay fëgg jaay dem à un moment donné nga ne gaay damay damay wanter di ngay jaay lu jar 1000 francs nga jaay ko 100 francs

ay jiit yoo xam te ay contrat mais faale bi contrat bu consulte même pas la base seen yoon ak mu baax ak mu baaxul ci l'essentiel ñoom ñu ngi faire ñu ngi gis seen bopp bu ñu voyager ñu ngi voyager première classe avion yi nekk ci hôtel yi suite présidentielle yi ñu koy tëddee. Hmm. Ah, am am ay auto de fonction garage parking auto tant que ñoom ñu ngi am loolu ministère, ak euh, am mais contrat ñom ñoom faale wuñu si dara sóoraale wuñu sa le Sénégal lambda la future génération qui va venir ñom faale wuñu leen lu dalé ci Senghor Abdou Diouf Abdoulaye Wade ba ci Macky ils ont fait trop de mal à ce pays ils ont fait trop de mal à ce pays dañu signé ay contrat yo xamantene fallait wuñu sax la jeunesse la future jeunesse suñu doom yi ñuy ñëw fallait faale wuñu leen xam nga lan lañu ñuy sen poste. tant que nous ñu ngi voyager première classe first class classe, fu ñu bëgg dem ci adina mën mm. sans souci. lek sen ñi lek ak ñun suñu ñi togg suñu kër le Sénégal lam le Sénégalais lambda bokul mm. mais enfin concrètement. tant que ñom ñu ngi am privilège yoyu mm. mën or Sabadola mën nañu wanter ak alors yoon alors invitation est-ce que le président dafa de euh, dafa de wuji dama ne Macron ñëw. Macron ci bopom mo wara a ah. il doit se déplacer comme toutes les tous les états. ñoo xamantene ne benn président dafa fallu nga déplacer dem nuyo ak mom euh, commencer di échangeante si yenen coopération bilatérale coopération win-win gagnant gagnant c'est la France. comment Macron peut soxla basir Diomaye fay mu ne ko ñewal ak Sonko mais c'est là où je suis pas d'accord d'accord dem. mais je suis pas d'accord Basir de Faye dem wala Sonko dem Macron moi len soxla du mais fofu la ñu jam jam di fofu la a ko Macron su soxlaay là, Diomaye Faye ak Sonko na jël avion ñew dara empêché wu ko Ken déclaré ko Sénégal personnel commandant non grata mën na mën na Bassirou Diomaye Faye bu ci keroog ci investiture bi amul ay président yu déplacer ñëw Macron Macron dafa leen gën Macron est-ce que Macron mo leen gën. Hmm. je pose la question. Hmm. président yi déplacer woon ci investiture bi est-ce que Macron mo leen gën. Macron bu soxlay Bassirou Diomaye Faye ak Ousmane Sonko dafa wara jël avion Air France ñëw fi man lool la gëm kenen tamit mën naa gëm leneen ah. on est en démocratie man lolu moy sama point de vue suñu ma consulté won tay ma nar am meuna am dara meuna wax dara son président son excellence président Bassir Diomaye Faye wala son premier ministre dam koy ne he yan bu len dem sort mo menu soxla na ñew na parce que il y aura beaucoup de chefs d'État qui vont venir pourquoi moom mu soxla len ñom ñu nara dame dem France pour faire quoi là-bas